jëri noo def nuyu naa la. fay naa la madame Touré Asma. Bandi Mori. waaw gis nga loolu am plaisir bu baax a baax bokk ak yow di ziar maman Aïcha euh, maman Ndak bu baax a baax suñu yaay ju baax ji ziar sama sang bi. Ah waaw mbay kenn du yow macha allah fan yii moom poñe réew mi nag. <laughs> say wax am na solo lool ñu ngi ciy jàngat bu baax a baax. ziar ñi nga xam te ne ñoom ñoo ñuy seetaan di leen wax juma mubarak Asma tey ñu fas yéene fi dalal Ousseynou Afia mooy suñu ganu tey lépp ci euh, mag. màggal gi rek lañ koy daal di wéyal ci 18 safar gi. mi ngi noonu Ousseynou Afia avec un immense plaisir de le recevoir fegoog moom plateau gi surtout nag ci juma mubarak. Mm. ah jërëjëf borom Touba ba ce que sëñ Afia Mbacke Falilou maa ngi siyaar waa kër gi Asma Fama yaw saas di siyaar sama yaay booy. ah di siyaar tamit xalifa général de Mouride sëñ Muntaxa Mbàkke yàlla na fi yàgg te wér mm-hmm. di siyaar xalifa général de Baye Fall sëñ Modou Mbenda Fall mm-hmm. di ko siyaar bu baax di yaan di ñaan yàlla na yéen ba oyof di siyaar tamit xalifa sëñ Afiya Mbàkke sëriñ Baare Afiya mu yàgg fi lool te wér ak rakkam sëriñ Baye Galas Mbàkke di siyaar waa Pikine di siyaar àdduna di leen bëgge bu baax di wax seen gan tey Ousseynou Afiya. Mm-hmm. Asma allah yaa Seyda ah. ne na sëñ Mountakha ngi ñuy ziyaar mi ngi ñuy ñaanal bu baax a baax dafa demoon démb euh, donc macha allah ziyaar na ñaanal ñu bu baax a baax waa baax yëpp d'ailleurs bu may ñëw la ko wax donc euh, ma daal koy jottali rek macha am na solo borom mbégte mi moom bu gisee ay ndaw yoo xamante ne dañuy góorgóorlu mënaguñu dara mm-hmm. lii encouragement la dañuy gën a yokk góorgóorlu gën a defaraat suñu toggaay yaay booy mm-hmm. ndaxte moom mm-hmm. ñun de ñoo ngi roy ci moom mbégte mi ak doylu yàlla lay bàl ah? lay sa yàlla fi yàlla bàyyi loolu amiin ak mbokkam yëpp. amiin na bi Moussa Faté àggale. amiin yaa mm. rabbi amiin. Aïcha mi ngi noonu oustaz laata nag ñuy dugg ci jumaa mu barak daal di ñëwaat ci safar gi damay bëgg ndax xaadimu rasul la ñu wax. Mm-hmm. amul ku dul yaa rasulallah. sallallahu alayhi wa sallam ñu nit amuñu ku moom. kon nag bëgg naa yaa Muhammad. nga yëkkatil ñu ko tuuti rek asma asma asma seexul xadim euh, war na. ndaw ñi mujjee ñëw xam li waral màggal gi gis nga li waral màggalug Seexul Xadim gi day sant yàlla ci bisu del waxuma waxu waxuma dellu seem ndax xam nga dellu seem mooy ndam hmm. nit mooy dem ami coupe indi feete hmm. mais wala mbër mooy dem bëre ji xam nga hmm. nit du dem ca làmb jay bàkku mais Cheikhul Khadim dafa nii bi may dem lay santale leen ma ko yàlla ñu ne ko la lu tax ñu la koy santale la yàlla mu ne ndax mission bi ma yor di dem damaa xam ne day am dem day am dellu Mhm. ça veut dire que ci mission Serigne Touba ngay ngay jàngee patience. Mhm. ci mission ngay jàngee muñ. ci mission ngay jàngee jéggale. Mhm. ci mission ngay jàngee jëllale. pour moo xala ko baat mu oyof asma buñ la laajee lu waral tukki bi. danga naan bésub samedi la fi bàyyeekoo. weeru safar la tombeel fukki fan ak juróom-ñett ci ci ci ci weeru olof. ma indi la ko ci arab ni ko sëñ Bamba waxee mhm. nee na xarajtu génn naa mhm. ñu ni ko kañ ga génn mu ni yow ma sabti bésu sam di débi ci olof mhm. ñu ni ko ban bés la tombeel mu ni saamina achara fukk ak juróom ñett ñu ni ko waaw lu tax nga tukki ku tedd ki mu ni li xidmatil muxtaar tukki ma ngir dara de dama tukki ngir liggéey li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ni ko waaw ban weer la tombeel mu ni xanaa fii sëhri sofar du ñu wax safar de du safar so fa ar muy ñu ni ko lan nga doon def mu ni xanaa liggéeyal yonent bi moo ne dafa ñëw ba ci biir géej gi ba ci bata bi ci lañu ko xamalee ba tey duñu la kii a ko xamal waaye yàlla yàllaa ko xamal ni ko <laughs> mboolem dem gi am nga ndam ba pare ñàkk dem am nga ndam ba pare te mu ngi ci yoon bi de mais ci julli géej gi ci la ci lañ ko xamale ni ko àllama ni xamal na ma arrahmaanu buur yàlla fi safina ci biir gaal gi wala fi safina ci biir bato bi bi ànd nii man hmm. cheikhul xadim xadimu zal madina maay hmm. katu borom dëkk bi di yonent bi sallallahu alayhi wa sallam léegi nag at ya weer ya bés ya loolu moo laaj patience moo laaj muñ moo laaj dal asma très ngi noonu kooku xaadimu rasul hmm. macha allah allah uh-huh. mi ngi noonu asma ba tey rek ci wéyal loolu ustaas li mu wax moo waral li nga xamante ne moom mooy safar gi di mm-hmm. màggal gi nga xamante ne bés bu ne rek uh, at bu ne ñu daal di ñaan yàlla fekkee uh, murit daal di ci wane ndigal ak jëf bu mm-hmm. baax a baax tey nag Ousseynou Afia lañ fi daal di dalal mm-hmm. bokk ci njabootu Baye bu ñu ko mënee wax loolu ndax ñoom dañoo am seen identité mu di ñañ yeeg ak yenn njaxas yeeg yooyu waaye balaa ñuy ñëw ci uh, kan mooy kan mooy déjà dañuy ñëw ci kan mooy Ousseynou Afia ndeysaan Fama laaj nga ma lu am solo kan mooy Ousseynou Afia waaw Ousseynou Afia mun naa benn jaam la rek comme ni ñëpp nekkee jaam nekk taalibi Serigne Touba. Mhm. wax dëgg yàlla ñu xamee ñu ci yoonu Sikuru laa. Mhm. ku ku ne Afia sa xel day dem ci Sëñ Fàllu kon ñun ñu ngi bokk ci njabootu Sëñ Fàllu Sëñ Afia Mbàkke mooy sunu wasila Ousseynou Afia nag mi ngi dëkkee Pikine nekk ci yoon bi di ci bay waaram ba yàlla dogal tey sunu émission tey ñu am ko mm-hmm. fii. Mm-hmm. waaw Ousseynou Afia daal mi nii. Afia bi dañuy dégg ngeen koy dakkantalee seen bopp bëri na ñuy woowee seen bopp Afia. Mm-hmm. Euh, kan mooy Afia ci yéen peut-être pour ñi xamul at sama genre yi nii. waaw Olof Njaay day wax naan. nit loo bëgg te dofoo ci sa bëgg day des. waaw bëgg sëñ Afia moo tax ñu jël ñu jël suñu sant. sëñ Afia ci njabootu kan la bokk. ci njabootu sëñ Fallou ah sëñ Fallou la. sëñ Fallou la mm. njabootu sëñ Fallou la. ah waaw mm. ñoom sëñ Abdou mm. ah, naa ah. boobu. waaw ma ci ziar ma mm-hmm. mu nekk jàmbaar lool. di mm-hmm. ñaan saa borom yokki ay leeram. ki ko toogal xalifa nag. muy sëñ Baara Afia. waaw ñëpp war nañ xam mi ngi foofu ci ndindi. Mm-hmm. ndindi màggal gi ñu ngi doon defee xayra waaye muy waxtaan ceeg ay kilifaam ba yóbbu ko ndindi mook sëñ Abdou Karim sorewuñu mm-hmm. kon sëñ Baara moom mooy xalifa sëñ Afia dëgg la macha allah mm-hmm. macha allah am na solo lool yal nañu yàlla taas mama mm-hmm. ndaak ci seen barke bu baax a baax lan nga ñuy yëkkatil nii ñu barkeeloo ko xalilullah ibrahima faal kalimatullah musa habibi balay muhammadu rasulullah sugaa yi dex muy géeje bugaa yi dee mu romb leen yaram gi sax am na yamuwaay ku amul yamuwaay muhammadu rasulullah tas na njël bi te ginaar góor yi ku man waral loo daw daw du tax nga dab seydina muhammad li may ñaan bur yàlla mooy jullit yépp dem ba makkata siyaare xabibalaay muhammadu rasulullaay yaa yaa leen gën la de yaa leen gën yaa rasulullaay yaa leen gën moo gën ya rasulullah wa bayu Fatima wa yaa leen gën yaa leen gën bëgg leen gën a yàgg na waaw yow la yàlla ton waaw waaw waaw billaay góor yombul góor góor gu mel ni Ibra Faal daa yombul góor mel ni Ibra Faal daa yombul suuru maam sey daa béy maam sey farma yaasin daawul mi jimbul macha allah macha macha allah Euh, na nga ko waxee góor yombul ku mel ni Cheikh Ibra Fall it yombul ndax moom euh, jëfe ndigal ci moom la daal di soxe ko mm-hmm. moom moom fa tabaarakàlla macha allah moom it yàlla nañu yàlla taas rek euh, ci barkeem Ousseynou vidéo nga xam ne génnee nga ko muy vidéo bu nice mm-hmm. yeneen yana nekk ci projet yi yaa ngi wàcc ab album waaw ndeysaan xam nga ñun moom daanaka ay ndaw lan mm-hmm. lu olof njaay naan yoonu ndaw du gaaw aar dafa métti rawatina nga nekk koo xamante ni jeune talent buy doog a débuté nga. Mhm. waaw jàppale yi day xaw a doy waar. waaye nag lépp loo xam da nga ko def rek mun na wax sunu poche la génne kon incha allah def na ñaari single. def mhm. benn clip ñu ngi koy dagaan sëriñ bi ah yal na ci ay album topp. Mhm. yal na ci ay clip topp. amaana sax bëggoon nañoo def suñu deuxième clip. waaye dafa xat moo tax dañuy bàyyi ba màggali ba ñëw. Mm-hmm. waaw looloo tax mais projet yi wax dëgg yàlla ñu ngi ci ah, ñu ngi ñaan nag ne ñëpp ñëw duñ lim kenn ne ñëpp ñëw parce que ay ndaw lan bëgg nañ ko. Mm-hmm. waaw kon ñu ngi ñaan ñëpp di ñaan nag borom kër gi bugaan. Mm-hmm. waaw di ñaan mu jàpp ci baax yéen tamit wax dëgg yàlla. ñu ngi ñaan ngeen jàpp ci bu baax a baax a baax. Hmm? moom li ma leen wax saa su nekk rek gis nga euh, sang bi. Hmm. nit euh, asma mën na neex baat mën nay hmm. def lu nekk di nga ko gis ci tiktok bi. mais problème bi mooy doomu aadama li njëkk ci moom pour mu am dimbal mooy organiser wu. am staff. Mm-hmm. ni dafay am staff ni dafay organiser wu organiser wu mooy lii. Mm-hmm. bu fekkee ni waykat laa dafay tëgg wala nangam dafay am loo xam ne dootuma ko àbbeeti damay raam nànk-nànk. Mm-hmm. bu ma mënee xañ sama bopp yére pour dem jënd benn benn benn benn tëggukaay. dinaa ko def. bu ma mënee xañ sama bopp dàll pour dem jënd benn galañ dinaa ko def. gis nga organisation boobu ngay teg staff bi xam ne ndaw ñi yow yaa leen yilif boo nee ho ñu jug. li ci des nag mooy tey ji euh, fii kenn egg du ma tudd kenn parce que fii garab bugaan dégg naa ma kaw lay fekkante amul benn jàng kat bu may tudd mais da ngay jàpp ni diw mële di dem euh, ma jox la benn exemple mhm. Balla Gaye bokkoon na ci ñi daan supporter ku mel ni Yékini dem na bu bëri moom. dëgg la doy na doy na ah, exemple. justement en tout cas on lui bon courage. woo mhm. euh, képp koo xamante ni safoo na mhm. lii di euh, li ngay ci li ngay yëngu. Mhm. mu daal di euh, ñëw bootu nekk sa ginnaaw. may la kàttan ak doole. ah barke Serigne Touba. ah barke Cheikh Rafal. bu ko defee ñoom bu ñu ko téelee seen bopp rek. dafay dem ca la jëm. ah incha